bu nee Serigne Cheikh Mbacke Bara Dolly xel yëpp day dem si njaboot gu mag googu si Touba ñu ràññee leen si wàllu politique waaye nag wane si yoon bu mucc ayib loolee nag ñu ngi ko doonee seen waajur bii di baax Serigne Bara Mbacke yi ku nekk xamoon na digganteemam ak président Abdoulaye Wade ak fidélité ba ba ni mu njëkkee nekk député Mbacke Mbacke. loolee nag dafa wuy si si doomam yii waaye nag ku si mel ni Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly histoire du Sénégal dina révélé di yàgg di wane ni kat première Mbacké Mbacké première doomu Diourbel doomu Mbacké doomu Touba bi nekk président du groupe parlementaire moom la doomu daara ji sagal na ay ñoñam ndaxte wane wu fa luñ koy xeebe ca dalga ga xam sujet maîtriser la muy wax waaye nag taxawal askanam ba mu jaral ko lu nekk saa su génnee ñëpp ay bàyyi xel ay waxam ndaxte la muy wax dalay jariñ te nag day tegu si xam-xam leer nañ yi moom Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly bokkoon na si ndaw yi gën a am yëngu-yëngu si parti démocratique sénégalais si ginnaaw président Abdoulaye Wade si wetu waa waajuram boobu di baax Serigne Bara Dolly naka noonee ba bi président Abdoulaye wàdd wàccee si bopp réew mi ñoom de bokk nañu si ñi gëm ni noonu loolu ñu leen bàyyil dañ koy suuxat ci ay période yu metti arrestation yi transhumance yi bari ñëpp nag daw gaal gi ñu jàppoon day soox toog di joow ànd ak seeni ñooñ waaye nag gëm ni fii si Touba fii la parti démocratique sénégalais di sago ndaxte président Abdoulaye Wade daan na wax naan fu ma mën ci gagné si Sénégal Touba bokk na si gox yi ma gënal que noonee moom Serigne Cheikh Mbacke Bara Dolly liggéey si liggéey bu am solo ànd ak pàccu parti bi yëpp nag mboolem segment ndaw yi sage yi kilifa diine yi waaye tamit population bi gëm. taxawaay bu ne mel ànd si ak moom ba rendez-vous bu mës a doon ànd nañu liggéey ngir am ndam firnde yi di élection yu bari yu nekk si seenu ginnaaw moom Serigne Cheikh baax Bara Dolly di kàngam si conseil départemental bi mooy toftalu président bi waaye tamit am na yeneen activité politique ndaxte moo jiite PDS si département de Mbacke di tamit tête de liste coalition wàllu bi ëmb ay parte ak mouvement ngir dem si élection yii di am si janvier 2022 personnalité politique bu dal mën a diisu ubbeeku loolu également ay stratégie politique moom te dalis bi bokk na si ñi nga xamante ni si ay gëm-gëmam ak kàddoom ni kat daara dafa am place si doxalinu réew mi ba tey gisin bu nu mel mën nañu jàpp ni tey ji à moom encouragé na nitu daara yi gën nañu gëm ni république bi daara bokk na si li koy jubbanti di koy gàttandu loolu feeñ na si ay prise de position am ay gisinam waaye tamit ay projet am si wax bu sell bi di Touba ak département de Mbacké ndax chaque sortem Touba rek ngay dégg a département bi ginnaaw bi mu jàppee ni tamit réew mi mënul soqaliku sans le Bawol moom Serigne Cheikh Mbacke Bara Dolly bokk na ci candidat yooyu nga xamante ni tey jii ñooy dàggaanaat baatu askan wi ci département de Mbacké ñeel élection yi di ñëw si wàllub jàng nekkoon na si daara ji am na fa ay lijaasa jàng na xam-xam si sous région bi si wàllub diine jàng na tamit yeneen xam-xam si mbirum àdduna tey jii présence am foofu si assemblée nationale day wane ni valeur personnelle yi mu jële si famille bi ak daara ji indi na jeexintal si taxawaayam ba tey di fàttali Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly mi élection législative si atum 2017 moo nekkoon tête de liste coalition gagnante fii si département de Mbacké ñoom nag ñoom joon jël raw gàddu gi seqoon ko ak parti ak mouvement yu si bëri yi nga xamante ni tey jii danoo sampaat seen nënd si élection locale yii ginnaaw étape boobu nag fas yéene dellu siwaat si goxam bii mu yàgg di taxawal ngir nag tàllal loxo askan wi au soir du 23 janvier 2022